feddali suñu kóoluteef ci Seexul Xadiim ñu ngi balu xàq bokk yépp di leen baal di ñaan yàlla boole mu jéggal da nga ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla sama borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak ñoo ngi nuyu bu baax mbooleem sunu kilifa yi fi ne Serigne Xamsatu Mbàkke moom Serigne Zoubair mu maam Thierno Ibrahima Faati ñoo ngi lay ziyaara Mbakke yaram ñoo ngi ñaan yàlla yàggal taxawaay bi ñoo ngi ñaan yàlla wéral la kenn rekk a dox sa digg ak borom daaru te borom daaru yu sëñ bi Seydina Zubayr ibnu Awaam la borom daaru tudde sa wayjur mu bokk ci asra basara bil janna nga sëñ Tuubaa bi mu limee xulafaa raasidiin ca bokk tuppatu mutadarriin ci asra basara bil janna su xaqi talxata bi dubayri rek la ci teg sëñ Tuubaa tudde yonent bi samaam di tudde saxaaba ya ñoo ngi lay jox boobu cër yëpp sa maam ay sëriñ bi sëriñ Mbay moom asta waaloo may ñi soxna jaara mu may sëriñ bi asta lawbe ak asta ñoo bokk maam ahmadu soxna buso asta lawbe moo meñ ñi soxna fatiisa mu meñ ñi cerno ca marsiyam ba boo ca demee bàyyi musaaga daf ni seen yaari maama bokk bàyyi fa mbàkke ñu dellu bokk benn bàyyi am barke ñoo ngi nuyu bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Fadal moom Cheikhna Ahmadul Khadim sëriñ Mountakha Mbakkeem si Mor Bousso Dieng Mbakke ñoo ngi lay nuyu de noo ngi feddali suñu taalube balay sobri sëñ Mbakke ak Maram sa way jur bu baax wa sëñ bu Bousso Dieng daa jëfal sëñ Fallu ba bis ci lu yéeme dama koo bëgg a tënk ndax ab nuyoo la waaye sëñ Fallu xamal sëñ Mor Bousso Dieng ni fii mu toll nii nangam a xew nangam ak nangam te téeméeri junne koy lijjanti moo tax ci jiw ma sëñ Modou ni ko xanaa male bi Mbàkke mu ni ko waaw mu ànd ak sëñ Cheikh su fay moom Cheikh Mouhamadul Habib moom borom Darou Mouhty sëñ Mouhamadul Habib ak sëñ Cheikh Awa Balla ak sëñ Mouraw Balla ak sëñ Ibro Fat Ñang ñooy ñeenti taaw yi borom daaru yi sëñ yi borom daaru joxoon sëñ Touba ak seen kaamil ya sëñ Touba téye ñett ya bàyyi sëñ Mouraw ball mu dellu ci borom daaru mu ni ko téyel ma sa bàyyi Moodu boo ko defee na nga noppee ñor di noppee jëy sëñ Modou Bousso Dieng problème bi téeméeri junne koy lijjanti mu dem wuti fukki junne mu dem wuti un million un million dénk sëñ Cheikh Assou Faye mu sëñ Modou Abibou mu borom daaru sa wayjur wa téeméeri junne ni ko téyal ma ko ñëw yëglu sëñ Fallou Mbacké sëñ Fallou ubbi bàyyi soxna may ak mbenn kooku nga xam ne lu mu mas wax yàlla def sëñ Fallou ubbiwaat sëñ Modou Bousso Dieng tàllal ko téeméeri junni mu daal di lal ñu toog mu ubbi wooñam waroon a yewi yewi leen ñu mat ñu xaxaloo ñuy bëgg a wéy sëñ Modou ni sëñ Cheikh Assou Faye jox ma beneen téeméeri junni bi mu jox ko ko mu tàllal sëñ Fallou téye ci loxoom mu ni ko ki leb le bor bi moo sant téeméeri junni yi sëñ Fallou téye def ci poosam ni waaw Moustapha Mbacké weexal nga mbët soo xam ni ku ko weexal sa bët dootu xonq sëñ moo li mu yoroon jarul ñaan ayowuloon ñaan bu ñu ma masaane joxe feuille de via ci Europe bu sëñ Modou wàccee danaan dugal leen ma ci oto bi fu ngeen bëgg lal na fi woto bi jaar na door a ci hôtel bi bu ngeen xëyee leen kenn du leen wax dara Cheikh Moustapha du ni tàllal leen danaan fu ngeen bëgg fu ngeen bëgg a lal oto bi may dugg jaar ma door a dem ci hôtel bi may dal bu ngeen xëyee ngeen lal ay waay ji sama ñoñ yàlla joxu leen njariñ li joxe njariñ la leen jox nafaahum dunya wa uxra naafiu bi ma bihi tatihimul manaafiu sëñ mag bi bu nekkee ci yow te ci sa xol joxe njariñ la lay jox doo am sëñ nee na sëñ Touba nee na xéewal yi dina bàyyi koo ci réew yu nekk sëmbërtalu ci yéen waaye ne leen ci sama mbind rekk bu boobaa seen loxo du daar te da ngeen di mos yaxuudu li manaafi al buldaani xati bila adan min al abdaani nee na sa loxo du daar te mos xati bila adan min al abdaani yaxuudu li manaafi sama mbind mi bila adan min al abdaani ci sa yaram du sonn ngay mos ay waay sëñ Tuubaa respecté ko daa ëpp fiis lu ne am na ku ca doon kenn boroom sikkim yi mel ni man boo nee sëriñ Tuubaa kenn la dañ naan yàlla rek kay kenn jërëjëf dëgg la de waaye yàlla lu ne def na ca kenn ngeen baal ma li ma wax li may bëgg wax nii waruma koo wax ci baas yi waaye football sax am na ku yor ballon d'or am déet yonent yi cent vingt quatre mille lañ trois cent treize a ci gën vingt cinq ci gën ñaar fukk ak juróom lañ ulul asmi juróom lañ waaye njool makkaa ci gën katabtu anal muntaxa xat faaxa man mada wa man yaati wa man fii sa zaman muhammadun nasiruhu lam yaati fi ma mada wa abadan la yaati خلقا وخلقا ظهرا والمثل قط لم يرى ولن يرى في سيم أحمدنا رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرحتنا والجود مسري بيمي لأنت الإمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الأخلاق ما عاجز الكل أجل إذ الشمس تخفي كوكبا أبدا مع السينماء مهما زادها الظلماء صلى الله عليه وسلم moo gën ci yonent yi ndax daa yàq ci kenn yàlla gi dara pour pourtant yonent bi kenn la de borom Touba kenn la ci lislaam bii nan ko nangu sëñ Touba nee baax ma sa def bi ñu lalee dénd bi ba fii ma toog yàlla rattrapé na ma ko ba ma def ko man Ahmadou Bamba bi ma ko defee ba noppi na ngeen xam ne ku mel ni man dootu am radali allahu allazi qad fata min al xuyuri wa misaali fata borom Tuubaa kenn la waaye ay suñu gaa yi ci Saliou Samb laay tàmbalee wax ji nan gore la lépp mooma succès bi moom la sañse bi moom la daamar yi moom la kër yu rafet yi moom la soxna yi boroom Tuuba la te jëriñoowul dara ci ay coono rek bu ñu dee ay gor bu ñu nee sëñ Tuuba nee na dañoo war a mel ni ñu dee delloowe ko ko njukkal rek la mu waxoon sëñ Issa jenn ni ko Issa ngeen yëg naar bee fi indi xorom si rek fay naar bi xorom si mënta nekk waaye nañu yëg ni naar bee fi indi xorom bàyyi Cheikh Mouhamadoul Fadal ak Cheikh Moustapha Al ñaari doom yooyu rek bu leen bàyyi woon jamono war na noo xam ne amul moroom ku Cheikh Moustapha nangoo gëm sëñ Fallou Mbacke nangu laa gëm amul moroom góor gu mel ni seex Moustapha mës ta am ci jamono ba tey jii may wax ak yow privé mës ta tëral un kilomètre raay Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Karim borom daaray Sidi ma ni ba àdduna sosoo ak tey laa la wax privé mësta taxawal un kilomètre raay Cheikh Moustapha ko jële njaareem indi ko gaar bu mag ba tey jii nag laa la wax de ba tey privé mësta taxawal un kilomètre raay privé Cheikh Moustapha ko jële njaareem indi ko gaar bu mag Alaaji Fallu Mbàkke jële ko gaar bu mag indi gaar bu ndaw waaw kay eh, doomi borom tubaay yi xanaa xamoo waxuma baatin saa yi rek amuñ moroom ci saa yi rek ñii amuñ moroom sëñ Mor Moussa Dieng mooy juru kee toog dinaa la wax lu doy waar pour nga xam doomi borom tubaay yi fi ñu tegante woon sëñ Fallou daa gëmoon Seex Musaa Fall Karim bëgg ko sëñ Modou bu Cheikh Moustapha Massana génn gannaaw takkusaan sëñ Modou koy bës sëñ Moustapha Bassirooy warga am ku ñëw ci sëñ Fallou Mbacké li ko Ahmad Tindo di moom jur de jàngi na Moustapha sama may bës Moustapha am sëñ Bassirooy warga Moustapha sama mooy bës Moustapha am sëñ Bassirooy warga te Ahmad Tindo di jàngi na moom jur sëñ lu ni ko baa ko ko joxee Moustapha Mbacke baa ko joxee mu Mouhamadou Moustapha Mbacke sama mag ju baax ja laa ca noppi ak a neexoon nga dikk fii ni ma faatu na ci kër Cheikh Moustapha ba denc na ko téye woo alaaj Cheikh Moudou Fadal mu jóge fa toog ca kanam sëñ Bassirou Mbacke ni ko Moustapha sama may bés Moustapha am sëñ Fallou yi Moustapha sama may ataaya mooy warga Moustapha am sëñ Fallou yi bés Ahmad Tindo di jàngi na sëñ Bassirou ni ko ab pël fa waroon a romb seex Moustapha yorub xaalis mu bëgg ca gàtt yi jël sama Moustapha tay la ko ba xam Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim ak baatin ba kooka dellu si ca waxtu woowa sëñ Modou Bousso Dieng tiim ko di bés sëñ Moustapha Bassirou di warga sëñ Modou di bés ba mu yàgg seex Moustapha ni ko nii ka wax yi sëñ Fallou nag ma nga toog ak sëñ Bassirou Cheikh Moustapha ni nii loxo ba ñu ko xam naa sax ñoo ngi wax seen way jur yi ni yaay bés ki yaay warga te Ahmad Tindo di moom a jur jàngi na waaye bis bu ñu demee ba seen way jur yooyu nekkuñu fi ngeen toog ci seen derye ñoom dinañ xam ni def naa ci yéen lu ma deful ci Ahmad Cheikh Mouhamadou Moustapha Bassir sëñ Tuubaa ko sédd sédd sëñ dama lay wax secret séddaleb sëñ Tuubaa kenn ku ne da ngay yaakaar ni yaa ëppale sa morom sëñ Modou sa jëng sëñ Cheikh Gaynde Fatma sëñ Moustapha Bassirou sëñ Mbacke Madina sëñ Abdoul Aziz Baara ñii ma lay wax sëñ Tuubaa leen sédd lëm alaaji Baara te seen génération la bokk ndeke moom lay jox yoon eh sëñ Touba bi mu fiy nekk la sëñ basiru Mbacke am pouvoir sëñ Baara Mbacke am pouvoir mu denc Mouhamadou Moustapha ak Mouhamadou Fadilou jox ñuy pouvoir ci kanamam ndeke ñee lay jox yoon ca première génération ba laa génération ba laa la wax sëñ Bassirou Mbacke siiw ak sëñ Baara ñuy tagge borom Touba bàyyi Bassirou ak Baara mu tëb sëñ Fallou ñoom lay jox yoon wi sedd ñi ci kanamam ñu jóge fi ñi ma la tuddal nii sët yi ma la tuddal fu ci waay wàcc doon xalif général des mourides mel ni xalif général a fa wàcc mu dey ci alaaji baar ak Cheikh Sidil Mokhtar sëñ Tuubaa mën a séddale moom la loxoom di jot fépp yéen seen maam ngeen ko ba yéen a ko ko gën la de sëñ Tuubaa amul morom ba ba nit ñi faatu ñu koy dégg bu kenn defoon lu li mu def yàlla fay kenn lu mel ni li mu fay borom Tuubaa lu jox borom Tuubaa jox ko kenn moo lay wan ni sëñ Tuubaa amul morom man amila saalihan wa man asa wa ma rabbuka bi zallaamin lil abiid yàlla du tooñu si njaam ku defoon lu mel ni li borom Tuubaa def yàlla jox la lu mel ni li mu jox borom Tuubaa kenn da koo def moom sëñ Aliou Mbacke sëñ Fallou maa ngi lay nuyu Seydou damaa wax ni waxal ci sëñ Touba dara wax ci sëñ lu Mbacke dara maa ngi bëgg a wax ñaari baat ci alaaji Fallou joxe rajo sëriñu sëñ Cheikhouna Ridi Cheikh Mamadou Fadal sëñ Fallou looy sëriñu sëñ Abdou Mbacke Ridi Fallu Mbàkke ku ko gën a baax nit ñi xamuñu ko ku ëpp sëñ Fallu générosité nit ñi xamuñu ko lii duy coowee Alaaji Baare ñun ñu jamonoon teg moom ci sëñ Fallu la ko doon ne baabu sëñ Maam sëñ bay teral ñi ko noonu naa yóbbu makka koo xam ni sëñ Fallou Mbacké ca mbaax ga mas naa yóbbu makka koo xam ni di ko sëñ Fallou yóbboo makka ba mu ñëw dañu ko ah man de jaaxle naa nag yow nga xam ni loo dégg maa la ko wax nga may teral ba yóbbu ma makka sëñ Fallou ni tekk ba mu yàgg waaw daa am bis suñ mag bi soxla ab buntu ubbi ko ne warta mel nii ñu ne ko yaa ko mën a defar mu ni nan la wooyee ñu woowi la nga defar ko mu dellu si laal ko ni hakaza nii la war a mel mën a toomaa def lu mën a xari ndax nii la war a mel borom tubaab yi ba lu moo gëm borom tubaab moo baax bàyyi sëñ mun njaay binte bis daa ñëw sëñ fallu tëju mbooloo mépp di nekk alaaji fallu mbàkke ba seen dellu yu waaj a jot bàyyi mun jaay binta xam bëgg gi sëñ Fallu bëgg borom Tuubaa mu ni leen bu ngeen ma neexalee ma génne am ñu wax ak moom ci ah sëñ bi xamoo lu ko tëj ba ubbi na nga nii te daawul tëj ba wax ci nii de daawul def nii de mu ni waaye bu ñu ma neexalee daal ma génne ko ñi bëgg a gis sëñ Fallu dajale seen addee jox bàyyi mun jaay binta bàyyi mun jaay binta jël dem ba ca néeg ba sëñ lu tëj mu wan néeg bi ginnaaw yuuxu mbooloo mi ni mbooloo mi ku yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba fekk ma fii ma taxaw sëñ Fallu fir buntu ni waaw maa fi njëkk ñëpp ñëpp ñëpp si yàlla sëñ Fallu sëñ Fallu sëñ Tuubaa rek la waaye wax ni am na way woo xam ni gars yi ñoo ngi koy way ñaari bayit la ci biir ñaari bayit yooyu sëñ Fallu dugal na lépp yaa sayidan fil maali alla sarwa ويا محب فؤاد دهر مسوى إني أتيت لوجه الله ظاهركم أبخي به نيل ما أرجو وأهوى يا سيدا في المال خلص رواه ويا مهيبا فؤادي در مسواه يا سيدا في المال خلص رواه ويا مهيب الفؤاد درم مسواه إني أتيت لوجه الله سائركم أقبنا إلى ما أقبنا إلى ما نيل ما نيل ما addee sëñ Fall suñ sëñ bi ok Cheikh Mouhamadul Fadal mii sa yaakaar lu yàlla bind xam na ko daana wax ak nit ñi daa wax ak lu nit moom sëñ Fall mas naa yedd aw fas woo xam ne bi mu ko joxar bee yedd ko wax ko ñaari baat fas wi daa dóor bopp bi ci suuf am ku ne ko mbàkkee gor la boo yeggale muy dee keroog fas boobu mu xëyee nangu wutoon wàcc fii ci Tuubaa booga la toog ci toogu njéeréer yi bari lool ba asamaan si lëndëm tëriis sëñ Modou Galas Mbaye sa waaja asamaan si lëndëm tëriis mu ni gees alaaj sëñ Bousso ilimaan ah, sëñ Bousso mu wuyu mu ko lii lu mu doon mu ne ko ah lii de yor yorub tey la fi ñëw Mbàkke moom mu ne tekk ba yàgg ne ko ana lu nar ana lu nar njéeréer yi ana lu nar mu ne ko ah xaw ma lu nar de mu ne ko neel neel fere yi nu fexe ba jàpp ci genn jox jàppum njéeréer andi Baye Mut Njaay binta nee na sëñ Fallu jàppul njéeréer bi da ko laal baaraam ni ko waaw fii nag dara lu kenn mën a yàq ñorewu fi li fi ñore ci jumaay sëñ Bamba ji la jëm dañ ko koy liggéeyale ma bëgg nga waxal ma ko sa mbokk yi daal ni bàyyi leen ko nu bàyyi njéeréer bi mu dugg ci biir njéeréer nu ànd génn àll bi bàyyi mun jaay binta binta nee na wolof nee na njéeréer baaxawul gontu waaye keroog njéeréer gontu na ko bëgg alaaj yu barke kaay jël rajo bi bis bi bisu barkeelu la bis bi bisu barkeelu la dama bañ mu gudd Cheikh Mouhamadul Fadal borom kañ nga gane jamono mu ni jàngal alquran fu sa gane jamono siiwee mu ni jàngal alquran noo tudd mu ni jàngal alquran ban bis la mu ni jàngal alquran looy liggéey mu ni jàngal alquran alaaj Cheikh Modou Fadal kañ nga gane jamono mu ni jàngal Israayil mbaa nga jàng naj mi yàllaay wax wa huwa bil ufuqil a'la suma dana fata dala fa kaana xaaba xawsayni fa haaza ma haaza min sirrin yuqassu bihi wa xat dana fatadalla bil munaajati wa amahum laylata al isra wa jaawazahum xata dana bi irtiqaain min sama li sama xat baata yuxriqu tibaa sali ala sari sama فوق البراق لسما محمد وكرم بحزبه وسلم فجفا آب أنهم وارتقى فوق البراق للقاء قد آب لي مجيخ رنان جيخ bu koy mottali summa li daari hiin sana fa aaba fii lay li xablal fajri mu jeex wallahu yad'u ila daari salaam ban bis na yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya li salaati min yawmi aljumaa fas'aw ila zikrillahi wa zarul bayaa foo dëkk alladina amanu wa amilu salihati tuuba lahum wa husnul maab noo tudd wa anna alfadla bi yadillahi yutihi man yasaw looy liggéey wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina waykat bi nee na ci ama wasasin la feeñ fa Touba am na ñu naa Daaru Salaam la booba ca mamaat la mbër mi génne daaru sañ si Touba Mbakke ñëpp a waaru tey ka zu la takku jundul ilaahi dar ko may bàkku bi su keroog dani bu ko kenn jant bi so buñ ko jox toqantal bi su na ni rasulullahi ñëw na fi ngir doom bi doona laahi inni yaa abdullahi moom la isa waxoon di mim njureel garaw na bu saabur ba defoon a a ba bis ba dellu see Serigne Touba liir bi dina toog bay atte daa bay maam sëñ Abu Njaay waaye jàngoo asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen bëgg Salim sëñ Falloo waxoon doomi soxna Faat Jaxate ni kóof maa nga ne di dem bu ñëwee dana ub làmb ji te kenn dootu ko daal sëñ Falloo ko waxoon sa sëriñ ba jërëjëf loolu nga bëggoon sëñ Basiru Kan alxuraan maa ngi koy nuyu